mbokk si di internet yi info 2S TV leen ak jàmm ci xibaar mu mel ne nag ci moo di pro di Ousmane Sonko nekk ci kaso bi moom nag amatina dëgg rek ci kaw li nga xamante ne seen nag moom moo di état bu Sénégal ci kaw pouvoir bi nga xam seen nag ñoom ñoo nekk ci nguur gi moom mi di Ousmane Sonko nag yàgg naa fesal ci ay kàddoom wax naa nag fargum Farba Ngom xaalis bu baree bari la yor li nga xam moo di këram di daan wax sax ci li xam moo di ay déclaration wax na sax bu manifestation. yoo amati xale yi bu leen dem di mars dem leen ci fi nga xamante ni si ne nag moom moo di lini ci kër yi ndax foofu daal ay milliards rek moom mu fa nekk bu mel ni nag ginnaaw Moustapha Cissé Lo ki nga moom moo di euh, Ousmane Sonko daal yëkkati woon kàddu yooyu nag kàddu yooyu nag dafa mel ni ISRA bi nag nekk na dëgg ginnaaw nag ki nga si ne moom moo di kii bi di Farba Ngom of bi mu ko nee rek saytu ko xamal ne ko moom daal sàcc na ay milliards yu bare bare bare ginnaaw nag Moustapha Cissé fësaloon fësaloon na waxal ne nan saytu li nga xam moom moo di xaalisu Farba bi fan lay jógee ndax ab géwal dong la te yére yore xaalis bu toll noonu rek instant yi nag dëgg yëpp rek mujj naa feeñ ginnaaw nag pour moom lu mu daan wax rek kenn daatu ko gëm mais daal euh, amati na dëgg rekk ci kaw li nga xam moom moo di état bu Sénégal ginnaaw ba mu ci ay kàddoom wax ci li nga xamante si nag moom moo di euh, lii di naan nan saytu xaalisu Farba géwal yoo xam si nday yor xaalis